nanu bamtu nettali bi weesu benn fan la kayin ak abel ak askanu aadama yépp juddoo juddoowuñu ci toolu àjjana moo tax teqalikoo nañu ak yàlla ñaar lu tax yàlla nanguwul saraxu kayin kayin dafa bëggoon a màggal yàlla ci pexey boppam nanguwul ne bàkkaarkat la te yàlla rekk moo ko mën a musal deful sarax bi yàlla santaane dafa def sarax bi ko neexoon naan dafay màggal yàlla ñett ci seen xalaat bu nit ñi déglu noyin tuub te bàyyi seen bàkkaar ndax yàlla doon na wàcce mbënn mi déedéet kon doon na leen baal yàlla bëggoon na leen te bëggoon na leen musal waaye yàlla dafa sell kon du nangu bàkkaar ñeent naka la noyin ak waa këram ak mala yi duggee ci gaal gi ñoom ñépp ci benn bunt bi lañu jaare dugg juróom kan moo tëj buntu gaal gi gannaaw ba ñu dugge loolu lan la ñuy won ci mbirum mucc yàlla moo ko tëj ni gaal gi amee woon benn buntu mucc noonu la yàlla joxe benn buntu mucc ba faw juróom benn naka la yàlla àttee waa babel yàlla safaan na seen làkk ñu tasaaroo looloo tax xeet yi wuute léegi te ñuy réeroo juróom ñaar nan la yàlla xoolee bàkkaar naka la koy ate yàlla bëggul bàkkaar te dafay mbugal bàkkaarkat